mais lii kay neex naa xaw bato bi bu gaaree fan la jóge fii lay fii lay dugg de en tout cas ah, en tout cas daal mën daa xam en tout cas drogue yi nee nañ benn la de man de drogue bii ci biir réew mii moo tax farata gi nekkul troisième mandat bi de Macky moo tey di ko tere nit ñi de même man mii sax nee naa leen bàyyi leen troisième mandat bii populaire bi ne ko tey de mm. les mots des sénégalais Aladi, M A U X. Hmm. mot hmm. le mal les mots. Hmm. lii mitti sénégalais yi fi mu nekk nii gars yi jël teg ko fële yóbbu ko deuxième division jël troisième mandat bi teg ci kaw. mais métti bi moom est-ce que nekkul ni day yokk chaque jour. jafe des yi de moom. lii xanaa dañoo bëgg di campagne. di campagne di campagne ba ba ba ba cinq ans yi est-ce que néew ne tonton nii la ko bëggee. benn instant président wax dëgg débat bi débat mais débat bi nag moo koy jeexal moom it taxaw ne leen sama loolu bu ci kenn débat yi man ñaari mandat laa yem jeex na. déedéet waaye mani politiquement Macky Sall mënu ko wax te naa la wax lan moo tax. Macky mhm. mën na def deux mandats de. Mhm. mais du ko mës a wax. Mhm. parce que bis bu waxee ne ñaari mandat la. daal di colorer la débat. wuy ma dootul nekk de président laaj ma lu tax. Hmm. pouvoir sax day wàññeeku. naw geeg ragal geeg tiit geeg yëpp. gars yi beru ku ci nekk commencé daas. say jaaj di taxaw. c'est que gars yi mi di polémique nguuram day jeex moom nguuram moom day jeex moom moom nguuram. dëgg la non nguuram day jeex moom Macky. ba pare gars yi dootuñ jublu ci wàllum réalisation. dootuñu liggéey duñ xëy dootuñ gont. maa koy wuti gi mel ni tulleeg male punkal fi nekk nii yëpp ci suuf ñenn ñi tamit jublu ci wàllum xaalis bi alaaj hmm. ñeenti at yi comme que punkal mi day dem ñun nañ leen jublu gaaw wuti xaalis gaaw Macky bis bu jékki-jékkee def communiqué wax ne deux mandats février ma pare dem sama yoon saye loolu xanaa xama nga baaxul sax ci ci Sénégal du ko wax de fonctionnement réew mi. li wax na ko ba pare jeex na nit ñi nañ ko gëm jeex na ku ko ci gëmul sa affaire la. man gëm naa ko c'est que ñun ñoo. ñun ñoo la bàyyi troisième mandat ñun. waaw ne leen nañu focaliser suñu waaye nag dafa waaye nag dafa war a dem jusqu'au bout de sa logique. xam nga lan moo tax. Mhm. soo waxee ne alaaji. Mhm. Macky a droit à trois mandats. mu bàyyi la ngay ndaataata la. te boo ne Macky Sall mii deux mandats la mu dax na lan moo tax <laughs> yow kay su ne man mandat laa bëggatul nit wax ko fi ku ko fi waxati nga nekk député dinaa dindi sa malaanu kiiraange te dinaa suuxlu ñu dàq la ci assemblée nationale wane ne yow bokkatoo ci ñun boobu benn ñaar ku fi waxati ne ñaari mandat laay am dinaa la dàq comme ni ma def ñoom sori ak ñoom ak ñoom jaxate waaye yow bu ñuy waxee ne il a droit à trois mandats continuer ci appareil bi ba léegi ni la laaj ah. te bu ñee waxee ne deux mandats la waré nga dakh ko te yow nee nga mandat bi la bëggatul ko xana kon façon ñaari mandat mom dama ragal na beneen mandat mandat wu ñu wax roju gay ba la taxas gee wato genn alaaj ñu ko taxas gee wato genn wet rek ah lolu jaxal ñëpp di Maki né na bëggul ñu nekk fi di wax ci affaireu mandat alaaj hmm. mandat bi mandat bi la di wa bu dul mandat poste de mandat bi la mandat bi kat benn la nekkul ñaari mandat ah, benn mandat la hmm. mu ne bëggatuma dégg nit wax ca hmm. jeex na waaye yow boo waxee ne makki mii dafa war a jalgati loi ñu bala fi. <laughs> boo ne ñaar la war a yem moo ko fi waxoon ñu dàq la Macky nee na ñaar la man ñaaram yooyu laa jàpp ak ah, ñaar la de. vidéo bi kay tegal naa la ko <laughs> ah, man sax léegi d'accord naa ci dàq d'accord mu ci woon mais léegi d'accord naa ci. koo na nga ko dàq. <laughs> ñu jublu ci liggéey bi. waaw man de dinaa ko jàppale ci communication. vraiment da ko ko am yi daal léegi daal sa waay xool. ranger ne ko àcc waaye nag. <laughs> mais nag na ci paquet yi ñëpp alaaji. Ah, ok bu ñuy wax ni mandat nii nga bàyyi mandat mandat ne mandat bee. Mm-hmm. nga bëgg a jël mandat bi def ko ñaari mandat te mandat bi benn mandat rek la. <laughs> benn mandat lañ la yónnee. benn passé wul cinquante mille. benn timbre la moo ne ci enveloppe. benn timbre. <laughs> jaajëfal